Assalamu alaykum sunu mbokk internet yi nii seetaan ñu ñëw fi tay ci marché Liberté 6 di waxtaan ak nit ñi ci affaire dundu bu ser bi euh sama cameraman dama bëgg nga top ma ñu dem ci biir ñu xol marché bi lu fi xew. yaay boy no def. ça va maa ngi fi alhamdulilah. tay ñu fekk la ci marché Liberté 6 bi. wa exact bi naka la. Seynabou. Seynabou no gisé marché bi ak dundu bu cher bi. lepp ko cher mëno laal dara. so jeun la yoré ni mhm. mhm. lepp lepp mënoo xam sax parfois sax doo gis jën bi da ngay ñëw marché tuuti ngay gis quelques personne ñooy jaay. mais dund bi soble beeg pomiteer bi ñuy wax dafa ajo dafa ajo bu baax. waaw parce que sachet bi surgelé bi. Mhm. léegi est ce que du 1000 kii laa ko jëndee 1700 la dernière fois fin du mois bi waaw 1700. ah kon cher na de. lépp a yokk. bu mu daan jar bu njëkk. ay eh, yooyu laa ko daan jëndee de. ba ay 700 1400 waaw. ah loolu kon bëri na. bu dee pomme de terre bii nii doom bi aussi dafa yokk mais kon baa góor ñi nangu nanoo yokku dépense bi. loolu moo ma jaaxal nag <laughs> bizarrement dépense bi fu mu nekkoon bu jógee quoi de ce fait yow yaay obligé di kërti affaire yooyu waaw. d'accord jërëjëf. ok je vous en prie. merci beaucoup. booy noo def. maa ngi fii. tur bi naka la. Euh, madame fay madame Faye xam naa mooy bëgg ceeb. <laughs> waaw. foo leen nekk ceeb baa fay. waaw ngi noonu rek loolu la ñuy wër. madame Faye tey ñu fekk la fii ci marché Liberté 6 noo gisee dund bu seer bi ak jën yi. métti na torop dund bu cher bi actuellement moo raw feebaru corona bi fi amoon. déedéet kay loolu ba nett na di. waaw xam nga corona bi da doon mais xiif bi dina mujj rey ñu bari. déedéet waaw parce que léegi li ngay dépensé woo métti na te du ku ne ko am. c'est pas parce que yow am nga ko man am naa ko keneen am na ko dund bi dafa métti. ni par rapport ni nga daan jëndee jënd di ko jëndee soble pomme terre boo amaan 3000 wala 2000 nga mën cee dugg par rapport ak léegi dépense bi xanaa élevé wu mais munta léegi même boo amee lépp sa kër ngay euh, jëndantu kese 5000 francs bi ay pièces ngay delloo si fekk yow am nga jën am nga yàpp am nga ceeb am nga dëwlin am nga poobar am nga yeneen yu sew yëpp yeneen yi kese am yooyu mottali rek 5000 bi ay wéccit nga ciy am. kon dund bi metti na. metti na torop. yaay booy ñu ngi lay jaajëfal. métti na trop merci beaucoup. sëñ bi noo def. salaamaaleykum alhamdulilah maaleykum salaam. tur bi naka la. Cheikh Mbacke. waaw Cheikh Mbacke naka danoo ñëwoon tey seet si waa marché Liberté 6. Mhm. ñu doon laaj ci dund bi comme yow ñu ngi la fekk ngay jaay ci li nga xamante ni ñun moom lan lay laaj. noo gisee dund bu cher bi. ah dund bu cher bi ni ngeen ko gisee rek lañ ko dem ci marché bi jënd comme yéen mais chaque jour saa bu ñu demee prix bi day gën a yokk rek. day gën a moo tax ndax jigéen ñi nee nañ soble bu daan euh, Euh, kilo sept cinq cent léegi trois cent mu ngi yóbbu ba sept cent. waaw ah, loolu moom dañ koy laaj ñu nekk ci kaw rek ndax ñoo deful lu ñu war a def ndax soble bi bu gënoon conteneur yi dañuy gën a ndooy yëpp. mais instant yi système bu ñu jël ren mësuñu ko jël ndax ñom dañuy génne par ben danaka jaay ko ba mu jeex ñu doora a benen beneen loolu moo tax mu démé ni mais buñ ko génne won dañuy génne benn guddi lu mat 10 wala 20 conteneur day gën soble boko défé day gawa circuler prix bi day gawa wacc mais instant yi ñu ko kiyé ren mom moo tax mu xawa a dëgër noonu. da nga japp ni dañ ko bloqué. waaw dañ ko bloqué diko ko génne par tout tout comme ça buñu ñu ben jaay ko ba mu jeex ñu doora a wat waat loolu moo tax mais dañ ko doon génne génne ndo par yu bari léegi looy wax ñooñu pour yéen ñi nga xamante ni yéenay jaay daan ci am lu astuut juróom te mënatoo leen ko ci am. Ah, bu dee pour man pour man moom awma ci problème nuñ ko defee baax na. yow yokk rek di rey client yi. non non du question loolu sax ndax ñu lu ñuy lu rek la ñuy jaayee. Ah. waaw waaw te sax nii nii nii mhm. la jaay bi gën a gaaw. ah yéen daal kon looloo leen arrangé. loolu arrangé ñu demee dama la wax ne man moom ni ko defee baax na. Ah, kon yéen looloo leen ah, <laughs> sant bu baax ñëwoon fii ci marché Liberté 6 di waxtaan ak yéen ci dund bu seer bi. Mhm. tur bi naka la. Dame Diané. Euh, Dame noo gisee dund bu seer bi ak yow miy góor di xam ne saa yoo xëyee di ngay joxe dépasse noo gisee affaire bi. waaw dund gu mu na trop macha allah. parce que bu ñu ngi doon dem bay jënd saako ceeb 13000. Mhm. dama fil fu mu toll ñu ngi ko jëndee presque quinze mille seize mille dix huit dix sept mille vraiment loolu seer na trop quoi différent kii yokku na loo ne ñun ñi nga xam ñooy góor ñi joxe dépense sax dafa métti suñu côté quoi. mbaa a ngi yokk dépense. parce que boo daan cinq mille yaa ngi joxe fu mu dix mille sept mille kii du ki douze mille. kan nga yaakaar ne fii la dund bi yokkoo ci ci kan la yaa yokkoo président euh, euh, kii Macky Sall bu fekkoon ne suñ fonctionné na euh, kii bi taxi kon man jàpp naa ne war a naa moo tax dund bi seer quoi parce que bu fekkoon wàññi ko yaakaar naa ne kon dina nekk loo xam ne dina yomb. yow lan ngay wax ñi nga xam ni commerçant yi ñoo xam ne ñooy a am yërmande tamit ci ñi ñooy jënd waaw xam nga commerçant yi ñoom itam mënuñu euh, a am na commerçant euh, bi day a si la gën a gaawee si comme yokk bi nii si la jaay bi gën a gaawee si a gaawee ci ñoom non loolu buñ ko waxee wax nañ loo xam ne amul que bu fekkee dafa dafa seer léegi ñu ne si la njaay gi gën a gaaw parce que bu fekkee yow yaa ngi waroon jënd euh, boo amee sa 1000 francs war koo jënd te léegi ñu wax la ki njëgu 1000 francs ñi la 2000 te fekkee 1000 francs moo ne sa man jàpp du mën a euh, kii quoi du mën a gaaw. jërëjëf Ndiaye. ok. leen encore une fois sama mbokk internet yi ñu doon seetaan ci sunu émission. yëgle sunu télé yëgle TV ak MTV euh, ñu ñëwaat euh, ñëwoon ci marché Liberté 6 bi doon waxtaan ak sama clients yi ci affaire wu ndugg dund bu seer beeg jaaykat yi am ngeen jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ci disponibilité bi nga xamante ni nii clients yi am nañ ko jëndkat yi am nañ ko jaaykat yi tamit am nañ ko di leen remercier di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf